Hallelujah. la meu amor. sant yàlla wax jërëjëf Baye Niass. ñun ñëpp ñu waxaat jërëjëf Baye Niass. ñun ñëpp ñu àndandoo waxaat jërëjëf Baye. alhamdulilah waxtu bi jege na. te ngeen ne programme bu mucc ayib dana fi allah. waaye loolu liy jiitu comme bu waxtu julli jot na dañuy jox Cheikh Omar mu noddu di julli. buñ bëree ñëpp toog bu kenn yàkkamti taayee bàyyi soppe yi tijaani julli ñi ñëpp nañ toog. jotaay bi am na ñoo xam ne sa doon julli te ñu fi. loolu dara taxul lu dul ñi sant wax jërëjëfee bàyyi ñeent sa bu kenn yàkkamti nag na ñëpp toog na ñëpp toog ñu noddu julli continué bi incha allah te incha allah dina rëy Cheikh Oumar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 من هب Ibrahima Samiou Sy Nit asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi fi tëjee ñun ñëpp ñu ngi wax asalaamaaleykum bi ngeen xam te miin ko moom la sang bi wax Seydina Muhammad su ngeen bëggee bëggante yeneen doxalin nuyoo seen diggante. ñu ngi nuyu awalan xaadimul umma Mawlana Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikhul Islam ibnu Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu ñun xam nañ ne. képp ku toog ci sirsu baay bi rek yaay cheikhul islam baay ñes mi ngeen xam te ñëpp xam ko te it mu nekk ku ñu réeree lool na kenn mënu koy xam te wax na ne soo laajoon fan yi démb ak tey suma bés suma fan xamul ma xamul suma tur nga laaj démb ak tey suma place xamul suma place benn waykat wax ne qul ani cheikhi mastataata wa ta ajzan ani baaqi laa yara cheikha xaqan xayra xalaaqi benn waykat nee na xul ani cheikh waxal ci bàyyi lu na neex wa tax nga bàyyi li nga mënta wax ndax laa yaare cheikh nga xamul sëriñ bi xaqan dëgg-dëgg xam xeer xalaat yur yàlla mi nga xam ne moo ko bindee sëriñ mënta wax kenn mënu koy wax kon nag ma ne ñu ngi nuyu cheikh Mouhamadou Mahi xaadimul ummati nañu moo dem am Madina Baye xam ngeen ne ahlul madinati ahlul irfani humu ahlul ilmi wa tuqaa ahlul kamaali ñooñ mën na bàyyi ñooy ñooñ xam yàlla dëgg ñooy ñooñ xam-xam ñooy ñooñ tuqaa muy ragal yàlla ñooy ñooñ kamaal muy mag ñu ngi nuyu mbooleem waa mën na bàyyi di nuyu Cheikh Mouhamadul Amin Cheikh Ibrahim Niass bi ngeen xam muy Baaba Lamin ñëpp min ko nga xam ne moom damay wax ne awlaadu Ibrahima kullan nujabaa wa kulluhum fillahi aanin mutabaa وكلهم في الجود جود قطرا وكلهم في العلم بهر صخرا وكلهم للشيخ وصل بهرا وكلهم كالبدر في منورا دولي باي نيبو باخ نيوم نيبو تبي واشياء محمد الامين باب الامين باي مو وحنا من شيخ ابراهيم يس دنا كيرم جيما جيرل جيتا عندي فين نانجي دندو سما تي دنا كو وكيل شيخ محمد الامين ممينكم بجيب تحدين احيوا بتحدين ما ما حيدت وان اموت وكيو تحدين من يهيب لها بهدي وموي شيخ محمد الامين موي كباي وقلنا انت ولدي جسما وروحا يا اسم تم كروح ويا اسم تم سيرا من كل نيو موم لا باي وقلنا رب الامين اعطي بالامين كلما طالبي بكلهم نبنا من رب العباد Cheikh Baba Lamine lañ na koy wax bàyyi na ko yow laay wax yow Baba Lamine moom nag tey moo bëggoon a ñëw démb ba léegi Cheikh Baba Lamine mi wax ne moom nan lay def ba mën a ñàkk a fekkee jotaay jotaay bii rek la Cheikh Baba Lamine bëggoon ñun man ak sopp yu baax yi ci ci njiital Cheikh Ibrahima Diassé Baba ñoo dem ci moom wax ko bés bii Baba mu ne danaa ñëw te danaa teew démb ba léegi yow mënul ñëw si jotaay bii. loolu métti ko lool lool Cheikh Baba Lamine moo wax ci lan la ñu ne man Baba Lamine mu tax dana liggéeyal bàyyi aw moo soxla Dakar Dakar ñëw moom bi dund na gën Cheikh Baa ngi ñees mu ne ruus naa ñu oo ko jotaayu bàyyi jotaayu xadra ma nekk Dakar yi ñàkk ñëw ñaan yàlla mu may ko wér bi jaay Cheikh Baa ngi ñees doo baax ànd nuyu ki nga xam ne moo teewal te mën naa njëkkee Cheikh Sirajou Dine ibnu Cheikh Baa ngi ñees ñun ñëpp xam nañ ne Baaba Lamine mu ñëw Siraaj ñëw dëgg-dëgg Baye ñëw na ndax moom moo toogee tey Seydou Cheikh Ibrahim Niass fii jotaay bi Cheikh Sirajuddin xam ngeen ne moom doomu Baye la Baye moo waxoon ne Muhammadu amdati Muhammadun wasari ana tufaylihu wabni musammaahu suma doom yëpp maa ngi ko tuddee yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ñu ngi nuyu Cheikh Sirajuddin ibnu Cheikh Ibrahim Niass waaye ñu ngi nuyu Cheikh Baye Al Lamine nga xam ne bés bii moo ko tax a bare kaw kaw nag ñëw ci xadara bii Cheikh Babal Amin Cheikh Baye ibnu Cheikh Mamadou Amin ñëw na teew teewaayu Cheikh Babal Amin ci jotaay bi ñu ngi nuyu euh, Cheikh Mawlana euh, Seydi Ali ibnu Cheikh Ahmed Dame Cheikh Ibrahim Niass Seydi Ali mu ngi nii ku bëgg mbaax képp koo xam ne jotaayu Cheikh Ibrahim am na fa. boo gëstoo da nga gis Seydi Ali Ahmed Dam ñu ngi ñaan yàlla mu fay ko yiw ñu ngi nuyu Mawlana Cheikh Dem ibnu Cheikh Hassan Dem radiyallahu anhu ku bëgg yàlla ku bëgg bàyyi bëgg trois ans wóoy juróom muy muy tudd yàlla Cheikh Omar yal na yàlla ko waaye ñu ngi nuyu Mawlana Barham sang Barham Ndiaye bés bi bés bu ko ñor la dooleem mu fi te mbooleem xadaraam alhamdulilah ñu ngi teew fi ànd ak moom ñu ngi nuyu Mawlana Cheikh eh, Babacar Diop ibnu Cheikh Mahmoud Issa ndax bàyyi ndax doomam la doomam la ndax léppam Cheikh Mahmoud Issa la rakam la ñëpp ku ndey ak bàyyi waay doomam la ndax lépp yi Cheikh Mahmoud Issa Cheikh Mahmoud Issa Diop mu ngi nii muy Cheikh Babacar Diop Cheikh Babacar Diop ñu ngi koy nuyu bu teewaay mooy teewaayu Cheikh Mamadou Insa bés bi ñor ko lool Cheikh Mamadou Insa mu ngi sa Amérique waaye fu mu toll mu ngi woote nan la bés bi commencé fu ngeen toll ba yebal mboolem xadaraam ci ñi doon Cheikh Babacar Diop nekk loo xam ne ñoo doon Cheikh Mamadou Insa Diop sëriñ bi ñu ngi lay ziar ñu ngi nuyu Cheikh nit ku baax ku bëgg baay ba ma demee kër waxoon naa ko ne ko yaa man yu naa bi ibri fay jëti yaa sanadi hayaata Ibrahima fi isni wa fi kërëmi Cheikh Abdou Ndaw mooy ibnu fayda mooy kusa fayda bi lépp lu yàqu ci diggante muqaddam bi moom mooy ñaw Cheikh Abdou Ndaw jërëjëf di ngay nuyu di la maa ngi nuyu di ziara Cheikh Baye Fall al Mursid mi ngeen xam fii ci Kër Massar kooku na si ñu ñu ñu tuddee bés bi incha allah loolu Cheikh Ousmane Ndiaye moom mooy ki koy wax waaye maa ngi nuyu Mawlana Konte ko ñu bàyyi bàyyi la fekk bañ tuddee ko comme day bëgg a bàyyi léppam na ko Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu ñu ngi koy nuyu. ngi nuyu directeur Souleymane Ndiaye ngi nuyu directeur Souleymane Ndiaye bi nekk directeur saf euh, saf ko comme ñu ko waxee moom du kenn ci xadra bi saf ah saf ko man nag yaa ngi ngeen baam baax waaye. Souleymane Ndiaye du gan ci xadra bi ñëw taalibe Cheikh Ibrahim Niass la xaqan te man leer la wóor na man miy wax këram chaque jour dañuy lanu naanoo si fa moom mii dana toog si naan nga naasir xaq yi koy doo dox soxlaam lépp lu mu mën a am timis bu jotee dana bàyyi lépp lan ma naan wusu léegi nekk xadra yi Cheikh Ibrahim Niass loolu mooy baaxam Seydi Souleymane Ndiaye yal na yàlla jox la bu dul Souleymane te bu la ko joxee xam nañ ne pays bi dana gis jërëjëf yal na la fay lu yiw sa teewaay picc nañ ci ñëw nga ànd ak doole yal na la taxawal dëggal la bi jaay Cheikh Baye Niass ñu ngi nuyu Cheikh Ousmane Niass ibnu Seydi Cheikh Ousseynou coobar yàlla gi Ousseynou man awjaba Seydi ilaa tilkal xuraa xasiyatan an yudallala Cheikh Ousmane jërëjëf ñu ngi lay wàccee sa wàccuwaay wuyu Cheikh Ousseynou ñu ngi nuyu Cheikh Amada mu Cheikh Sëriñ Mamoun Niass mi nga xam ne moo nekkoon Ousmane Hadara bi mboolem délégation Pape Demba bi tey Cheikh Amada Niass mooy ki ko teewee ñu ngi koy gërëm di ko ndokkeel ci teewaayam ñu ngi gërëm Moukhadam Faye ak mboolem Moukhadam yi Baye ma ne Moukhadam yi Baye yëpp ñëw nañu Baye waxoon na ne kulla muridin yasdali muridi bi adabin wa xidmatil muridi lakin man sahabani muradu ilaa kanaalu kulla ma araadu bàyyi mu ne mboolem taalibe man na xeeb ma bës ci tegiin ak ne waaye man bàyyi dama am lu mu laakin na waaye man Cheikh Ibrahim Niass man saxaaba yi ko ànd ak man muraadum yow muraad nga doo murid ilaa ma araadu moo tax yéen lépp lu am taalibe bàyyi maa ngi leen di nuyu dëgg dëgg yéen a bëgg Cheikh Baye Niass wax na ne falam ara fi sharqi biladi wa xarbiha nadiran li ahbabi umumul mutarraqi dox naa penku ak xarfu gisuma mukk ñu mel ni suma taalibe yi ci kaw suuf ñu ngi nuyu mbokk yi bi teew ay murit yu baax yu bëgg sëñ Tuubaa ñu ci jotaay bi ndax yàlla rek moo leen andi bés bi bëgg yàlla la waaye ay tijaan yu baax yu bëgg sëy di Cheikh Hadji Malick Sy ñu ngi jotaay bi ndax xam nañu jotaay bi jotaayu Cheikh Tidiane radiyallahu anhu kon nag damay jox Cheikh Ousmane Ndiaye cinq minutes laa koy jox mu tënkal ma délégation mi nga xam ne ñoo ñëw ñi daal la kàddu yi ci moo leen ko xam ne war nañ koy lim war nañ ko tudd. Cheikh sang Barham naa ko Cheikh Rajo Dine mën ñu wax mu ne jaay na Ndiaye bi. Cheikh Abdoulaye jërëjëf dem nañ këram waxtaan na ak ñun moom Sëñ Barham ba ñu dem fekk na a waxoo ila Ababakarin sayyid al-qawmi fa saqaana bi majribi sheyqi dem nañ toog quatre heures ba timis benn baat laay wax ñun mooy ba ay ak doyam benn baat laay wax ñun mooy bàyyi gis ak doyam ndax moom wax nañu ne Sénégal xamuñ bàyyi sànni gars yi ñu ne mission dëgg mooy Sénégal xam nga Cheikh Baye Niass radiyallahu anhu moo tax ma ne ilaa Ababakrin ma ni dem loolu laa wax suma xaabir ma ne ilaa Ababakrin ñu ngi jëm ci Aboubacar sayid al qawmi kii sànni góor ñi ñu ne ci ronam ñëpp ay góor la fa saqaanaa mu naan leen bi foofa ni machri bi Cheikh ci naan waaye sëriñ bi Cheikh Baye Niass sëñ ba xam bismillah Allah Allah Allah Allah Allah Allah waaw ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam waaye di gërëm Mawlana Cheikhul Islam Alhaji Ibrahima Niass Alkawlaxi Cheikh sax mi nga xam ne moo mujj a feeñ te mu dëkku te aqarra ba'du rusuli وهو مقدم فبدل ببدل خير قبول فأقر بعد وهو مقدم فبدل ببدل خير العقل والنبال من الجنب الأقل moo fi fii di Sénégal nekk tribunal ko jàmmay lay oo te ba dem yonent yi jaar fi ba dem wala yàlla jaar fa mu ne moom mu def feeñ moom Cheikh Ibrahim waaye déglul wax ja sama soppi léegi caam wax na ko te ma mën a misri ca isaara ne bàyyi daal dañu wax ci moom li ñu xam tuuti rek baa ngi di des waaye noo nañ jéem wax lu koy ndax baa moo fi fi ne wax qaddama fatihi hinna mahdi wa ana tamihu يرتب التحت قدائي دلو من خلاقته في الشرق والغرب فكفة فيدا لقح دولي بح إلى لسمي سسائي ولله ترقابا وعين يوم عين محمد سرا سره إليك الورائي وقد أنت قدي وقد عرت يبني رجال الغيب فقد عادي faaw ñu ngi lay gërëm. ñu ngi gërëm mbooloo mi yëpp la ma waroon njëkkee lay mujjee maa ngi nuyu sama sëriñ. ma ngi toog fii ak man wa anta siraju diin wa taw saatihu wa sila wara wa lame taqaras mooy li wa sila wara wa sila lam yataqaras wa anta siraju diin wa sila wara والسر والأمن خلاص سبايك موي كون ني ستا بابي ني نيب دوكل انا يوسمان صوب يالا بي جامل ابو سب سلي بار خول ناس باي ناس دوكل ييب اجل ما نك كيب كو سنغال دوكل اجل amul problème te aja yaatul du fees te boo moo ne waxoon Sénégal yi waxoon Sénégal lay wax وسلام يأوي تحت سن محمد ويبدو ربا كرسال موحدا ومن زكى غير هذا فظنه تقديم علي باطل لم يؤيدا وإنكم أهل كبيرة Baay Ñas More than moo leen ko dafa penku ak sama jam Makka sama kent ngay jënd ci Makka mbir na mbaay la wax yëre dawaay wu mu buy it. dama ko nekk rek dama ci kenn rek ma ne bàyyi nee na moo leen ko dafa penku buy it. dagg ay man di gën a gëj wuti Makka man bàyyi sama kent bi la ngay di Makka fa la wane na wane wuli pour koo أتينا الله وهذه يوم هيدي بو سما سلو في تلك الوقت بوحل زمان كل ما ضرب سيرا من يصل هو واحد تبغى مكة يقول لك أنا كذا بعير ولا بمكة ñeent pompe rek moo fa ak la ñeent rek la nga des ay kii la rek ma ne balaa man nee ma yéene la taw la ko doom no bokk nga génne ko ci ma xam ne bay ma génne ko ci daaw sof ñaata nga am naa bës sa defar fooy dem ñett nga jabara jabara jabara passé fooy dem il faata souvent bi tuuti wala mu jaxas nii léegi ñu ne bàyyi yow lan moo tax nga ne yow ñii xëy na maa yow lay bañ a parce que foog yow la mu ne eh nahnu uula darasul kitaab wasal kitaab nahnu ahlu hadi wal arkaat waaye ku wax. yaa dégg nahnu ahlul haqqi wal arkaan. lii de kàllaama Cheikh Ibrahim la. ndeysaan waaw jéggi na yow. bàyyi ba naan yu daal Mouhamad xam nga gars yi léeg-léeg léeg-léeg nga dem rajo wax ñaan kii la dafa tëb a kon parce que bàyyi dafa bëccëg dafa ne yow xamoo la néew. est ce que bàyyi bi mooy wàññi nga naan dafa kon. donc xool bàyyi nag ba naan yu daal moom yàlla déglu daal. yes kii ko ɓaade sama soppe dama ñëw suma àgg fekk sama gàmmoo wax suma bu nekk loolu wax waaye nag yéen ñëpp seen i gën tey seen i gën tey ñu am naas Touba Ouest. ngeen ma dina dugg Kër Massar am na doom ñu ngi lay sànni rek. donc monsieur nee na sang Abubakar Barhama Ñas ñaar ngeen wala wala ala ma nekkul wakil maa ngi nuyu ñëpp leen Sarr maa ngi nuyu Mouhamadou Amine sama soppe sama xarit ne sa dooma sama sang alhamdulilah su ko amee doom mooy mootu bàyyam su ma la wax naa sa bàyyi xam nga nekk yow gërëm naa sama biir sa liggéey rafet na sama par rafet na keroog bañ demee ca programme bu programme bàyyi su bëri maa ngi def ndax lu wax yoo xam ne dama ko tàggatoo ko maa ngi doon baax digal ko wax kat sant naa la gërëm naa la lii ma doon ma sëriñ doon ma sëriñ am naa ko saalihiina saalihoon it as la way laa fa lay sax mi loo koy takk ministre dafa leen gërëm El Hadj Ndiaye sama doomu Ousmane Ndiaye sama doomu Ousmane Ndiaye maa ngi nuyu Louga di kontaan ñu ko takk gannaaw bi kii toog ci sama gannaaw nii Seydi Ibrahima Niass kii kii kii kii kii mu kii moo doon suñu fas baa bi nekkee xale kii taxaw ci fi bàyyam moo moo uniforme saal ñëpp naaj ko déggoo kii ba ma nekkee xale moo doon man maa man maa doon fan sa man ma bàyyam dafa ma doon oo ma ñëw. bàyyi ma ñëw mu bii sonko bi ne ma Babacar ma naa moo wala Fatou Kitam ma dikk ma tari Fatou Kitam ma ne ko Fatou Kitam ñëw léegi ànd ak yow loolu yàgg na ay sama yàgg yàgg yàgg ko moom mii ku ma dimbali ci àddina ku ma tànn ci àddina te la ko fii ci moom ñu xam bu baax ñes ma dégg na baax kii moom a invité gàmmoo barki dem moo jaay fii ci ginnaaw rek dama dem na gàmmoo sa gàmmoo jëlal bii xam si ne lii lii la wax yaa ko fekkee yow kër yow des maa ngi ndokkeel baax sëriñ maa ngi kontaan trop jaamu jëf dama dëkk jaamu jëf soo demee dama fokkee moom moo tax dama nag gàmmoo rek ba sëriñ mu ñibbi gàmmo sëriñ mu ñibbi mu aw moo ñëw mu ne fànn ma naa mu ne ma dawal kër taabu jëf ngir boo xam ne danga muy jaay am fi une semaine loolu ñibbi ren moom am naa fa 15 jours day nekk yàpp di ko émission rek laa fa nekk te loolu moo tax moom bi ndokkeel baax tudd ah daa yes sama soppe sama xarit mooy yooyu njëkk yi kii moom bu ñu waxoon sax jëndal ko waa ji xoolee ko rek xoolal bu nekkee mag rek ak bu nekkee xale xale bu nekk mag ak nit ñi man ah mais xam loolu xool ni mel jënd ko ndax dina ko nit ak kii nii rek tiijaan tiijaan lu mu gën a màgg di gën a gën a kanam gën a gis nga màgg tamit yëngu booy dee dégg nga sëriñ bi dama ma wax la tuuti waaw waaw waaw waaw waaw. waaw som dëgg la da ngay dee su ma bon ah kon secret baa ko kon secret baa ngi nii jërëjëf kon lii secret baa ngi nii xoolee na kay ku liggéey julli xoolee ku liggéey ciment rek xoolee ko xoolee ko li nga xam ne ko liggéey xool xoolal bu màggatee day ras yéen a ngi it de fee bàyyi di la ko rek xam nga toog bu dugg daal di bu dugg daal bu daan naaw di xam fuy jaar waaye man itam fuy jaar si maa ngi jëm si tara yi tëj biir fay ak ba tey gis ma xam naa leen leen saara wax dëgg gudd na sax li mu woon gudd na maa ngi leen ñëpp leen saara bokk